rasul Seydi Hadji Malick tudd naa maam Seydina Limamullahi maam Seydina Issa Laye tudd naa kilifa diine yëpp maam Ahmadou Ndak Seck maam Thierno maam Ahmadou Ndiéguène ñooñu nga xamante ni seen dund yëpp dañ koo xeex injustice ñun ndono loolu la ñuy sauvegarder ndono loolu ndono mag ñooñu dañ koy sàmm bu baax a baax a baax. donc tey amuñu fu ñuy jéggaani nu ñuy xeexee injustice parce que am nañ ñu ñu doy sëkk ñoo xamante ni ñoo ñu jàngal ni nga xamante ni noonu la ñu war a xeexee injustice naqarlu ko fexe ba li nga xamante ni ñëpp bokk nañ ko ñëpp mën cee jot. ba pare nag leneen li mooy wax naa ko dinaa ko waxaat sunu mbir ci xam-xam bu wóor lañ koy teg sunu mbir ci itte ju mag lañu koy teg volonté. li sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di wax ne xaw ma soxla doomu aadama boo xamante it itte xaj na ci kawam sunu mbir ci lan lañ koy teg ci teggin lañ koy teg si détermination lañ koy teg beneen bi mooy maa ngi koy wax keroog fii ci géejawaay ma ne leen politique ku ciy dugg da ngaa war a xool bu baax ndax yow mat nga wala matoo ndax yow euh, euh, euh, yar nañ la wala yaruñu la. ndax mënoo jóg ne da nga bëgg a nekk solution saafara pour nit ñi mais nekk problème fu ñuy yow nga ne da ngay politique nga ne danga am yitte pour saafara jàngoro askan wi yow fu ñuy fekk kuy violence yow la fu ñuy fekk kuy saaga yow la fu ñuy fekk kuy xaste yow la fu ñuy fekk kuy jël alalu jàmbur yow la mais kooku warul def politique kooku warul dugg politique kooku dafa toll ci ñu yar ko mënoo toll nag ci ñu ja ñu war laa jàngal nga dem di jàngale c'est pas possible loolu moo indi jafe-jafe bi te loolu dinaa ci dellu siwaat l'obligation que les formation politiques yi nga xamante ni moom la ñu am pour gën a tàggat gën a yar ñi nga xamante ni ñooy ñëw di bokk ci ñoom ci politique ñu ñu bañ leen a yar ci haine de l'autre bañ nit ñu bañ leen a yar ci bañ koo wuuteel xalaat ñu bañ leen a yar ci wax safaan ñu bañ leen a yar ci di ci di wax nakasul noonu kilifa yi ñu bañ leen a yar ci xotti worma ak xotti li nga xamante ni moom lañu am bokk ko muy réew mi nga xamante ni mënuñu ko séddoo réew mi amul titre foncier réew mi amul sens interdit kenn benn woy politique amul fi titre foncier amul titre foncier sud amul titre foncier nord Ziguinchor du titre foncier benn woy politique Podor ak Matam ak Bakel du titre foncier Sénégal Sénégal démocratie bu am solo la Sénégal démocratie bu ñuy doxal la pluralisme médiatique pluralisme politique lu mënta ñàkk ci réew mi la boroom xam-xam bi dafa wax ne donte li ngay wax d'accorduma ci dinaa xeex ba nga mën koo wax donte li ngay wax ne waxoon naa ci benn ndaje ne ragaluma ku ma xalaat li may ragal mooy ku ñàkk teggin ragal ku ma wuteel xalaat li may ragal mooy ku ñàkk teggin loolu rek lay ragal ku ñàkk teggin te su ma sañoon jeunesse sénégalaise yàlla xam na ne senegal ci yéen la yaakaar pour génn ci guuta bi te jenes boobu sonn na jeunesse boobu bakkanam daanu na ba tàyyi jeunesse boobu deretam tuuru na ba tàyyi ndaw ñooñu tey jii sàmm seen ngor ak seen seen dignité seen diine jaral na leen lu ne waaye jamono bu ci nekk rek ñu fekk benn politicien boo xamante ni ñàkk solo lool di ko jël di ko jëfandikoo loolu nag laa bañ loolu laay bañal jeunesse su Sénégal ngal la bu leen nangu kenn instrumentaliser leen ngal la bu leen nangu kenn manipuler leen ngal la bu leen nangu kenn jëfandikoo leen parce que ku leen di jëfandikoo du ngeen ci gis rakkam du ngeen ci gis doomam du ngeen ci gis jarbaatam ngeen ci gis jarbaatam du ngeen ci gis doomam du ngeen ci gis rakkam du ngeen ci gis ay soxnaam donc doomu jàmbur yi lañuy jël te Cheikh Mouhamadul Muntaxa dafa am lu mu waxoon dafa waxoon ne àdduna ak li ci biiram àdduna ak li ci biiram jiite ko jarul benn bakkan di rot loolu nag dama koy réitérer fii bakkan ñiy wax ñëpp ñiy bëgg yëpp bakkan rot ñoom seen bos dañuy fexe ba mucc benn bakkan bu rot dafa rëy loolu moo tax yonent bi salaatu wasalaam di wax ne soo rayee benn nit dafa mel ni rey nga humanité te loolu lay rappelé waat la dignité humaine ñu fonk doomu aadama fonk àq ak yelleefu doomu aadama damay wax ne politique espace la boo xam dañ cee war a yëkkatikoo ko kenn waru cee torox te léegi lan la ñu gis ci relation politique yi muy ñi jiite réew mi boo jiitee réew jàpp ne pouvoir bi nga am dañ nga cee war a nott askan bi jàpp ne danga war a toroxal opposant bi jàpp ne da nga war a humilier opposant bi ñaata nit la ñu fi gis ñu humilier leen depuis 1960. defuñu dara lu dul wute xalaat ak ki yor wala ñu ne ko ah ni nga yore baaxul de waaye keroog maa ngi koy fàttali te loolul mooy sama poñ bi nga xamante ni moom moo ci topp il faut que maa ngi ñaan ñu wax sénégalais yépp di ci jiital sunu kilifa diine yi di ñaan